apparemment si je comprends da nga defoon émigration. oui lan moo nekkoon yow say motifu émigration. man bi may dem dama demoon au fait pour jàngi. Mhm. ma jàng ba pare euh, gis ni pare naa. Mhm. defatuma foon dara vraiment. Mhm. donc ci laa commencé di liggéey liggéey liggéey liggéey euh, ba mu yàgg je me suis dit bon man dama ne damay dem jàng. su ma paree dama war dellu sama dëkk. c'est vrai que état faylu ma kenn faylu ma sama dem bopp laa dem. su ma paree dama war dellu sama dëkk pour jëriñ sama dëkk euh, lépp loo xam ni war naa ko créer fii États-Unis ci liggéey ci business di ci fay ay nit damay dellu sama dëkk di ci fay ay nit ñoom ñu jëriñoo ko parce que dama jàng pour dellu sama dëkk pas pour toog fii ñoom ñu koy jëriñoo donc c'est la raison pour la laquelle ma ne dinaa dellu si et j'ai préparé sama retour pendant un an di jënd lu ma soxloo mm-hmm. préparé sama li may def ak yooyu et cetera soo ko ñëw yegsi tey ba tey may wax ak ni je suis en train de des gens mm-hmm. des emplois démb rek laa mujjee fay salaire. Ah. donc loolu la ñuy wax immigré bu nekk mais nag benn instant ce n'est pas facile nga dem xam li nga bàyyi sa ginnaaw pare sa jàng et puis revenir vers revenir revenir euh, au pays. Ah. ce n'est pas du tout facile il faut être courageux. Mm-hmm. il faut être vraiment il faut être ambitieux il faut être vraiment. Euh, quelqu'un voilà mentalement fort. Euh, pour pouvoir le faire. Parce que moi, quand je voulais devenir, on me disait Malik, non, tu vas devenir fou, tu ne connais pas le Sénégal, tu, toi, tu Américain, tu as grandi ici, etc. Mais je suis toujours là. Depuis 2015, je suis là et Alhamdulillah, je vis bien avec euh, tout le monde.